ne soxna Aida Saliou Thioune li ñu njëkk gis ci moom mooy ak taalibe ak murit sadix gëm Serigne Touba di ko liggéeyal ci ak murit ci nit ñu diglee ak murit <clears throat> mu di ko doxalee adduna nag day dox te léeg-léeg <clears throat> euh, réeroo am ci diggante. ci ni ñuy digloo ci ni ñuy diglee ak murit mu di ko doxalee mooy murit ndigg waaw murit ndigal ndax moom musul jëfee lenn lu dul lu luñ ko digal mu def luñ ko tere mu bàyyi. soxna si musul wàcc ndigal ci kaw suuf ba mu nekkee xale ba tey ndigal lay jëfe tey ndigal loolu moo ko indi fii tey euh, ci li nga laaj nag diggam ak Tuubaa jàmm rek moo fi nekk bi ci njëkk mooy bi fi seex bi nekkee xam nga dafa ubbi woon ay waañ Tuubaa maanaam ci màggal màggal màggal gi 1991 il faut ma delluwaat ci taarix mm-hmm. xam nga xel koom li ci ëppoon Serigne saaliyu Mbacké seex bi la ko daan jox muy góob ak déqeeg naaf ak dajale lépp mu dajale taalibe yëpp yóbbu leen fële fa nga xam mooy xel koom ñu ñu tarbiyee ñu liggéey foofu. soxna si ci xel koom kenn mësu ko ci man ay weer dañ ko daan def foofu Serigne Saliou Mbacké wax 1991 wax seex bi ne ko dama bëgg màggal nga fonkal ma ko fonkal ma gàmm gi. fonkal ma xasida yi fonkal ma bernde fonkal ma li nga xam ne mooy ak yeneen ak yeneen yu bari waaye lii moo ci ëpp solo 17 avril bi doog a ñëw seex bi kenn ne kon màggalu Tuubaa gi il am ci beneen taxawaay euh, seex bi daal di fexe ba quartier bu ne mu créé fa ay waañ indi li nga xam ne mooy ay nag teg fa teraanga ji nga xam ne tey boo yow boo ñëwoon Tuubaa tey mun ngaa dem màggal màggal gi dàq ci màggal yi te doo dal ci génn kër. Hmm. ndax quartier bu nekk rek dañ ne nañ fi ubbi ay waañ teg fa li nga xam ne mooy ay nag ak teraanga ji fa jëm loolu boo ko dajalee ay milliards la mu nekk xalaat boo xam ne nag xalaat bu am solo la. ci wàllu économique waaye xalaat bu am solo la ci wàllu doxal ak liggéey seex bi def loolu ba loolu jeex sëriñ Saliou sant ko ca gërëm ko ca gërëm ku ca xamal ko ni ko nag dinaa leen ñaanal mucc ba faw yow ak koo àndal dinaa leen ñaanal njariñ lu yaatu lépp seen lépp njariñ lay doon man Serigne Saliou Mbacke dinaa leen ñaanal yokkute seen lépp day yokk ba faw dinaa leen ñaanal man Serigne Saliou Mbacke barkeel seex bi ak koo àndal sa léppay barkeel dinaa leen ñaanal bari le lépp loo bëgg ak loo xalaat ak loo yéene rek suñ borom daan la ko jox ba nga doyal ko ci loolu moo waral tey da ngay xool nag yi mu jaaxal la nga ne lii fu mu bàyyi ko booy xool danga nga naan lii fan la bàyyi ko moo tax Sénégal xam nga Sénégal day banqué ay nag soxna si bañ na ko ba léegi Mali lay jëndee ak Mauritanie loolu laa waxoon ne suñu réew mi war nañu delluwaat ci yarum jur ndax bu ñu demee ba tabaski bi jotee ñun dañuy jéggaani ay ay ay xara ak i nag loolu war nañ xoolaat suñu bopp loole doon am tuubaa ca màggal ga ba tey jii soxna si mi ngi def lu ko raw màggal gi lu mu néew néew dana génne ñaari milliards la ca ëpp ci teraanga yi nga xam ne dañ koy màggalee tuubaa la jëm muy nag yi muy xari yi muy bernde yi kon xam nga foofu moom jàmm rek moo fa nekk beneen bi mooy euh, alxuraan dane ya in jaakum faasiqun bi naba in fa tabayyanu yàlla mooy wax ci alxuraan de mu ne bu ñu la indilee sëñ Ilima almaami sekk Seck bu ñu la indilee ab xibaar nee na na ko saytu ba mu leer nañ ngeen doog ko siiwal waaye bu xibaar ñëw rek ngeen yaatal ko wala loo dëgg ci say nopp rek nga gëm ko. moo tax ma ne la amoon na ay jamono yëngu-yëngu amoon na ay wax jaaroon na fi waaye loolu lépp jeex na tey ñamu séqaloon teraanga ak kóllëre tey la ko gën a séq ñoom. ña mu seqaloon Serigne Touba ak ki nga xam ne mooy Serigne Saliou Mbacke tey la ko gën a seq ak ñoom Touba Mbacke ba léegi nii dafay dem ku fa xewle soxna si dafay dem. ñu de am na ay quelque ay dëkk yoo xam ne am na ci biir Touba mu sol dàllam jigéen bu mbuur dem foofu ku fa am itam xew boo xam ne fekk na ko ci Sénégal. dana sol dàllam dem bu dee xewu bànneex la mu ànd ko ak yow bu dee xewu naqar la mu ànd ko ak yow du caagee ne nag euh, dem ak tuubaam yëpp la ñuy jël di ko médiatiser mais nii nii ba nii nii nii ku xew la tuubaa xewu jàmm te mu xam la day sol dàllam ñëw ndax dafa am yitte ci nit ñi bu dee beneen xew itam ko mu sol dàllam ñëw am fa kër nag am kër tuubaa te tuubaa ku am kër fa nga dëkk looloo tax ma ne la euh, diggam ak tuubaa boo demee ci 17 avril bi waa Touba yaa fa ëpp tey Touba gépp ay kaar ak ay biis la ñuy dugg pour ñëw 17 avril fete ko ànd ak moom bu gàmm gi jotee itam xëy na gàmm moom dafa yaatu waaye du tee itam ay délégation yu dul jeex ñooy bàyyi ko Touba ñëw Mbuur ànd ko moom ci liggéey boobu